jërë ngeen jëfati mbokku internet yu 5M TV Sénégal di ànd seen chaîne bile di fi teewloo xibaar El Malick Ndiaye mu ni kon ginnaaw gi nga xam ni rek ak mbir yi fa mu daal di tollu jëmanti nag ci seen wàllu adversaire yi lee nañu xam ni kon fi mu nekk ni dara rek mënul téye lu jëm ci wàllu patriote yi ci atum 2024 ginnaaw ñoom taxawaay bu solo bi nga xam ni am nañ ko ci wàllu politique waa itam lu ñeel rek élection jongante nag falum njiitum réew file ci Sénégal ca noonee kon mu ni nañu yi rek jëm maanaam rek lépp lu ñuy wax nañ ko jëmee rek ci ñi nga xam ni politique rek moo waxal ñu daal di leen tëj ñu daal di leen di bàyyi ñu récupérer itam seen carte électeur waaye daal di rek booloo ba bëgg jël ndam di rek ci wàllu parrainage bile ginnaaw googe nag ñu jàpp ni kon loolee mooy li am solo rek ngir ñu am li ñu bëgg.